wa radiyallahu an alsaxaabati waltaabiin wa man tabiahum bilhuda walimaani ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di ñaan mu wutuñu ci santal ñu boppam di ko ñaan mu julil ñu ci sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne lu yàlla bind moo ci gën di ñaan itam mu gërëmal ñu ay saxaabaam yi nga xam ne ñooñu daawul diine ji jàppul ñu jàppal ñu ko ba mu agsi fii ci ñun ñaan itam képp ku jàpp ci njub googu yàlla na yàlla gërëm la ba bés penc ñu ngi dellusi ci silsila bi ñu nekkoon muy as silsilatu fi siirati nabii sallallahu alayhi wa sallam muy ay séri yoo xam ne dañ ko doon def ci jàngale kan mooy yonent yàlla muhammad ci façon boo xam ne ki ko déglu dana jur ci moom mu xam te bu xamee dina sopp te yeneen bi ku ko sopp da koy bëgg a topp te ku ko toppandoo da boo dee dem àjjana yàlla moo ne wa in tutiuhu boo leen ko toppee rek tahtadu di ngeen jub te muy ku neex a topp ndax jàmbaar la moom moomu nag ñu nekkoon ci siiram ba toll ci wàccaayu gazwatu Uhud nga xam ne ci siira moom mooy xew-xew bi gën a ba képp ku sopp yonent yi boo ko jàngee mbaa nga déglu ko di nga am bés boobu lu la métti lool yi ko jur nettali nañ ko gannaaw gazwatu badrin al kubra bi amoon ci janvier l'an six cent vingt-quatre l'an 624 ci la xazwatu badrin am ci janvier ci weeru koor weeru koor googu nag ba mu dellu si ca déwén sa ba ñu wari fukkeelu fan baak juróom ba ci weeru koor yi comme nii ci la loolu xewoon muy xazwatu Uhud muqaddimat yi wax nañ ko muy préalable yi ko juróon waa Quraysh dañ xeeboon yonent bi ak waa këram ñëw na dañ leen di liquider rek dem ñibbi foofu ñoom ñu mujj leen liquider mu doon nag choc bu rëy Abu Sufyaan mbir mi jàpp ko moom lañ bëggoon a wallu bon ki dee mboo njaay mu doon dem fële ci benn xas benn ir Zayd ibnu Haarisa dogaale ko jël deux mille cinq cent géléemam ak alal ja ca nekk yépp ba ki dem ba demoon na fi si xaswatu sawiq ñu dàq fa ba alal jamu yoroon yëpp tabaarakallahu ak dund ba ci yoon wala ko bàyyi gàcce yooyu nag daje waa Quraysh ne lii duñ ko seetaan euh, ba ki demoo njaay bani Qaynuqaa ijlaa nañ leen génn nañ leen ci madinatul munawwara mu doon gàcce gu rëy ci yahut yi am fa nag benn waa joo xam ne kaabu kaabul al ashraf lañ koy wax yaayam yahudiya la waaye baayam arab la mu bokk mu nekk entre le marteau et mu ne waa ji liñ ko may dafa ëpp moom kaab bi moomu wax nañ ko ci alfiya bi farqirat ki kaabul ashrafi wa ibnu xuqayqi euh, salaam ibnu xuqayq mooy ndi yaayam ndax moom yaayam abil xuqayq moo ko jur euh, nga gis kaabu boobu mel ni ku rakkaaju parce que yaayam yahut la baayam arab la mu doon métissage boo xam ne nii jural na ko ay faveur yahut yi dañ am alal arab yi dañ am fasaaxa mu boole ñaar yi di def commerce dëkk bu mu dem làmmiñam wu neex dina tax commerce am jar mu dem a dem bañ juddee ko taajiru xijaaz ki nga xam ne mooy le grand commerçant de xijaaz muy wër nag di jaay yor alal ju bari bi xaswatu badar amee nag mu am choc mer ne waa ji bay bayal nañ ko ba mu agsi fii du ko seetaan jël géléemam jël alal ju bari ànd ak moom euh, dem tabaarakallahu euh, màkkatal mukarram abu jaylin recevoir ko mu ne ko yéen loo leen di xaar ñàkk ngeen fayda trop seen mag ñi ñu rey ba dée ba ngeen toog rek ne ënga ëngaaral defu leen dara ñu ne ko pexe la ñuy xaar mu ne leen loo soxla ci alal laaj leen ma loo soxla ci pexe laaj leen ma waa ji daal nañ ko jekkali rek moom Kaab te ci résolution bi ci xew ma dina xam nga bokkoon na ci an laa nu waali Qurayshan nu wihim bu ñu recevoir waa Quraysh bu ñu leen dalal bu ñu leen dimbali te moom bokk na ci signataires yi mu bàyyi loolu ñëw fii di def di fexel yonent bi ak waa këram sallallahu alayhi wa sallam abu jëlin euh, abu sufiyaan afwan kontaan ne comme am na ci seen biir ñoom waa yasri ba ku ñëw ba fii di bëgg komplo boobu kontaan na ci kaabul ashraf yamatu ci dem ci jigéen ñi ne lu leen tere jooy ñu ne dañuy bañ a jooy Muhammad di ko dégg di ñu yàpp mu ne loolu du fi amee jooy bind ay xasida yoo xam ne xasida dëj la jàngal ko jigéen ñi ñu koy way di jooy loolu dafa bëgg rek pour rijji taal bi ba yëf yi gën a boy mu bindaat yeneen xasida di xas jigéen yi euh, euh, euh, lansaar yi ak jigéen yi muslimaat yi nga xam ne ni ay jullit lañ nga xam ne radiallahu anhum aj hunna ajmain xas leen xas yu metti ba ci umul fadli di yaayoo abdullah ibnu abbas yooyu nag dis ci jigéen euh, jullit yi te comme way moom dañ koy mokkal bu doon tey rek day mel son bu mu génne musique boo xam ne ñëpp koy dégg ku mu neex ku mu naqari arab yëpp mokkal way yooyu yonent bi toog benn bés ci jàkk ji ne man lii bi Kaab nu Ashraf fa innahu qad aada allah wa rasulahu ay waay jullit yi kan moo may dimbali ci Kaabul Ashraf ndax lor na yàlla ak yonent bi ndax ku lor yonent bi rek yàlla nga lor Muhammad ibnu ma jub taxaw al ansaari jàmbaar la woon am doole am fit ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa danga ma fàtte waaye ji sama ndijaay la sama ndijaay la ñoo bokk al ansaar ci néegu baay ak néegu ndey donte yahud la bàyyi mag moom ma liquide ko yonent bi ne boo ko mënee defal xale bi jug dem di xool ay pexe nag gëstu gëstu ndax ki mu bëgg a songo mbër la gëstu gëstu tiit ne man alku naa naa yonent bi loo xam ne wuuruma ndax dinaa ko def wala duma ko def te xës naa ko ko wax ba pare te bu ma ko deful alkulaay def loolu nag jural ko tiitaange koo xam ne lekkatul naanatul lekkul naanul ba ñetti fan ay bokkam ne ko waaye lii lan la mu ne yonent bi dama koo wax lu ma mënul a def te wala bokk wóoru te ma ragal ne bu ma ko deful bu ma dee safara laa jëm ñu ne nañ dem nga wax ko ko moo gën nii nga nekk lekkoo naanoo waxoo xam nga loolu bu ci continuer sax du mën a rey kenn ah bala ngaa rey am doole ñu yóbbu ko ci yonent bi nekk ko waa ji ba mu jógee ci yow ba tey dafa ne ci fitna lan la ñu nettali ko lépp yonent bi ree ne ka loolu nag jarul ma alayka illa an tuhaawil yow loolu kay ba nga koy wax waat taxul woon da ngay jéem rek boo jéemee boo ko mënee xayrun boo ko mënul itam yàlla fay la sa yéene mu ne ah alhamdulilah demee na noonu alhamdulilah mais nag du du ma ko mën a def man rek est-ce ma may ndigal ma am ñu ma àndal mu nekk ah kay mu jël doomu ndeyam nag abu naa ila abu naa ila al li tax mu jël ko dafa am may parce que moo Kaabu ibnul Ashraf boobu ñuy euh, waaja a fexel ko benn ween wu ñu nampee nee naa la arab daawul nampal doom yi jël xale bi jox ko keneen di ko fay kon doomu ndeyam la mu jël abu naa ila jullit la ne ko dégg nga li bi wax mu nekk ko effectivement mu ne ko dama bëggoon nga ànd ak man mu nekk ko naa mu jëlaat ku ñuy wax aws euh, moom it ansaar yi la ñu ànd ñoom ñett bàyyi ba guddi afwan Muhammad ibn Maslama dafa dem ci Kaabul Ashraf ci bëccëg gi ñu doon teg moom ne ko euh, Muhammad ibn Maslama laata muy jóge ci yonent bi bokk na ci parmi les rares personnes yi tuddoon Muhammad ci jaahiliya parce que baayam dafa mës dégg ne ci benn labbe ne yonent bi mujj ñëw ci mujj jamono Muhammad lay tudd mu tudde ko doom ji doon yaakaar ne dina ko doon fekk na xamul ne ki ko war a doon moom juddu na sax ba pare jamono yooyu ndax kii moo ko mag mu ne yonent bi fala budda an naqul waa ji ñu war a rey dafa bari pexe bari doole bari alal ba nga xam ne jug rek rey ko du yomb fow ñu kii daal ñu créé ay wax yonent bi ne lépp loo leen créé ci ay wax mooy li ñuy tuddee wax lu dul dëgg daal loo leen créé ci wax te te bëgg jëfe ndigalu yàlla ak yonent bi tax dagan moo lay wan ne cause cause daal benn rek la mooy yàlla xam nga ko wax dëgg ñu wax ñu bindal la yiw ku fen ñu bindal la bàkkaar mais boo fenee te yàlla sax yiw ngay am nga xam ne yàlla for na torop loo def ci yàlla sax rek dagan laa budda an naqula il fallait que ñu inventé ay wax pour pour mën a kii waa ji mu ne ko dagan na mu ànd ak ñoom abu naa ila ak Muhammad ibnu Maslama dem ci waa ji nuyonteeg moom Kaab nu Ashraf ne leen loo leen def fii loo leen def fii ndax bokkatuñu camp donte ñoo bokk dëkk bi ñoo yaroondoo mu ne ko daal man ñun dañoo rus sax nga mu ne waa ji daal vraiment waa ji fii ñëw ñun dañ ko toppoo pare mais kersa lañ ci am gàcce gu rëy lañ ci am mu ne ko waajan mu ne ko waa ji di oote ne yonent la mu nekk ko ah, ci lan noonu Kaab ibnu Ashraf kontaan ndax bég bañ gi mu bañ yonent bi mu ne ko waaw parce bi mu ñëwee bañ dalal ko ñun ñu lekk talatuñu naan te lu ñu am jox nañ ko ko toog vraiment rek waa ji kontaan tëb ne waxoon naa leen ko tey yey naa leen yéen a ngi nii amatu leen dara wax a wax a wax ñooñu sëgg rek mu ne ko mais lu la fi indi woon mu ne nag à cause de ça ba bëggoon rek nga lebal ñu dara daal lu ñu lu ñu dundee fii ñetti weer rek bu mbay mi ñoree ñu man laa fay mu ne lii laa doon bañ yaay ngi a ngi topp koo xam ne jëmul fenn wax a wax a wax ñooñu nekk waa d'accord mu ne mais xoole yëgul ni ñu nay mais du leen lebal noonu ci nen dangeen indi garantie nga ko mais xam nga ne amuñu luñ garantie mu ne ko non foo ngeen indi garantie mu ne ko luñ lay indil garantie mu ne ko da ngeen may indil seeni jabar euh, waa ji waa ji def ni nga def yow saay saay bii bu ñu la joxee suñuy jabar ak suñuy doom yu jigéen <laughs> du dellu si du dellu si duñ def loolu duñ def loolu ndekete Muhammad ibnu Maslama pexe la doon ut mu ne mais loolu ngeen indi mais ñun ñoru yoruñu alal lenn rek lañ fi mooy suñuy gànnaay te xam nga gànnaay ci lañuy xeexee mu ne ah mais kon da indi gànnaay yi loolu la bëggoon nag ndax gànnaay yooyu ñoo ko a rey waaye xam nga moom ñoom ñoom ñoom dañ daan tabax benn château château jàmbur di nga fa dugal ay gànnaay dañ lay jàpp gànnaay yooyu la bëggoon justifier seen dugg foofu ndax waa ñi château la tabax boo xam ci biir la dëkk léppam ca la ne ak njabootu léegi dinañ la indil gànnaay mu ne mais gànnaay yu mel nan la ñu wax yu su sophistiqué yu ñu am boobu ay jaasi la ak ay sémmiñ ak ay guntux ak yu mel noonu mu ne d'accord mais da ngeen di bàyyi bu gudd ñu nekk nag duñ la ko mën a indil yi dañu dañuy bàyyi ba guddi. bu ko defee ñu indi la ko pour nit ñi bañ ko gis ndax kersa lañ am daal dañuy bañ nit ñi xam ko mu ne d'accord maa ngi leen xaar guddi guddi googu nag lañ dellu préparé euh, maskawu ànd ak seeni xale indi gànnaay bi ñu ñëwee ba ci buntu kër ga teg ka fa kenn ki dugg nekk gànnaay yi lañ la doon indil mu ne anam ñu nekk ko ci buntu kër gi mu ne ko ñu ne déedéet yow yaay génne nga xool ko yan qualité la fexe fexe ba génne góor gi Muhammad ibnu Maslama nag wax ñoom Abu Naila ak consort ne leen bu ma àndeek moom di dox di dox ñuy waxtaan di ree bu ma nee hëpp rek hëpp rek na dal moom dinañ tëggante hmm. ñu génne waa ji sol yére yu baax di xeeñ parfum bu neex maankaan yow sa parfum bi dafa neex sax sa parfum bi dafa neex maankaan dama am séet bu bees ñuy waxtaan ci loolu ba yàgg waa ji ne hëpp gaa yi génn ci mbooy mi yet yi dal jaasi yi dal ba waa sedd guy sedd guy ñu escalader mur bi daw avant fajar dellu seen waat nañ madinatu munawwara ñëw ci yonent bi fekk muy taxawal fajar mu seen Muhammad ibn Maslama yonent bi borom xam-xam la xam nga lii kenn yëgu waaye mu xool ko rek ci sàppe di fa xool rek ak xool di ko xool ak xool naka lañ kàbbar julli ba sëlmal mu ñaan li muy ñaan woolu muhammad ibnu maslama nekk noo mujjeg sa waa ji mu nekk qad qatala allahu aduwaka ya rasulallah sa noon bi yàlla rey na ko moom waxul ne rey naa ko de sa noon bi la wax yàlla rey na ko yow nag di nga mer ne waaw lan moo tax ñuy rey kooku déedéet kooku rey boppam ndax résolution bi waxoon nañ ne képp ku xotti xormay résolution bi Euh, falaa yazlamanna illaa nafsahu loolu jàngoon nga ko sa bopp nga ko def loolu moom moo ko def boppa lii nag bi mu amee waa màkk dégg gën a mer nag madina dégg ko muy yahut yi tiit dañoo tiit ndax kooku dafa amoon influence presque rang roi la amee woon jamono yooyu am na ku ñuy wax abu abu abu euh, euh, arrahib arrahib abu amir abu amir arrahib benn waay la boo xam ne dafa ragaloon yàlla bëgg yàlla sopp yàlla ba maari detaar yi daan jaamu yàlla di xiir nit ñi ci yàlla fu mu toll benn bés mu oolu ay nitam ne leen tuub leen ngeen dellu ci yàlla tuub leen ngeen sellal seen xol dellu ci yàlla parce que balaa yàgg yàlla dina yónni ab yonant yu boo xam ne nii dina ñëw ci dëkk bi ndax yahud yee ma ko wax nekk ci loolu abu abu amir nekk ci loolu ba yonent bi ñëw mais xaal boobu mu nekkoon taxoon na nit ñi bëgg ko sopp ko ba sax bi Boaz passé moom it fe doon nañu waaj pour defaral ko benn benn couronne pour def ko buur boo xam ne daal seen sëriñ lay doon ñuy topp ay ndigalam bi ñuy waajal moom it couronne boobu comme ni ñu doon waajalee Abdullah ibnu Ubay ci la yonent bi ñëw bi mu ñëwee mu ne du kii kii du dara kii waxkatu waxkatu lu dul dëgg la wax lu ne yonent bi sallallahu alayhi wa mais nit ñi ko daan topp nag bàyyi ko dem gëmi ji yonent bi mu frustré wu mer ñàkk lu muy def dem siri toog fa ña fa la nasaraan ya nekk toog fa dégg nag mbiru yonent bi di yokk di yokk ba victoire u bi mu ko déggee mu gën a dee ne dinaa sàggan rek ba waa ji jël sama dëkk moom ko euh, jël gëlëm na ku war ka dem màkk gëlëm nga xam ne yow bañ yonent bi maritali ne leen dama bëggoon yéen lan ngeen di toog ba boobu ba tey defu leen seen vengeance ñu ne ko mais yow léegi yow lu ci lu ci sa xalaat mu ne pare leen waa Madina man lañ gëm danaa dem corrompre leen fexe fexe fexe ba ñoom ñëpp Euh, ànd ak yonent bi nii ci jëmma mais dinañ xeex ak moom ñu kontaan ci loolu tàcc ko euh, abu abu amer dellu dina dem ci ay bokkam ñoo ñu nekk yow fenkat mag yow doo dara fii nga toogoon daan ñu waar bërki démb ak bërkaat démb àdduna tax nga bëgg a xeex yonent bu yàlla yónni mu leen du yonent laa wax ñu nekk nag kii yow rey la moo gën a simple ñooy bàyyi waa ji mu ne ah yéen yàqu ngeen sama gannaaw de ñu nekk yéen yaa yàqu yow bari na ko naan diw yàqu na fekk moom moo yàqu yàqu gi nga yàqu moo tax nga gis ne kookoo yàqu Abu Amir jële ci mer nag woolu soixante dix personnes ne leen euh, organise nag ne euh, forcé Abu Soufiane ne ko foog ngeen def vengeance xanaa kon condition yëpp daje na pour guerre am waa Quraysh ci seen niveau xale yi nga xam ne dañoo rey seen bàyyi ci Badar daje y compris Safwan ibnu Umayyah al-Jumahi ak euh, tabarakallahu Ikrimatu ibnu Abi Jahlin ak Abdullahi ibnu Abi Rabiata xam ne doomu bàjjenu yonent bi la sax waaye kéefar rek tax ñooñ ñoo def délégation ñëw ci Amr ibnu As mi nga xam ne As ibnu Wail bi jur moo daan saboote yonent Euh, te faatu année yii laata Badr rek la faatu ñu nekk daal dañ bëggoon dem ci Abu Sufyaan waxtaan ak moom ci benn idée ñu daje ci daarul nadwati waxtaan waxtaan wi mooy lan Abu Sufyaan danga jëloon suñu alal ñun ñëpp dem ak moom euh, def commerce en retournant ci la la jullit yi doon dogale ba tax suñu baay yépp demoon pour doon rawale alal jooju des ca alal jooju nag dañu bëggoon nga estimer commerce boobu ni mu toll nga jël bénéfice bi teg ka nële jël capitalu alal ji delloo ko seen borom bénéfice bi yépp nag ñu bañ ko lekk jënd ci ay armes bu ko defee dem fayu jël suñu baay yi moomoon alal ji Abu Sufyaan ne leen xel moom rafet na man maa jëkk a d'accord estimé naa alal ji alal ji cinquante mille dinaar la cinquante mille dinaar nag jamono jii moo ëpp cinquante millions damay bañ nga foog ne yii la moo ëpp cinquante million mu ne biñ ko jëndee benn dinaar bu ne dina jur dinaar maanaam bénéfice am mooy cinquante millions yi kon buñ ko jaayee dina doon cent millions ñu ne ko nag dangay jël capital bi muy alal bi ci boppam delloo ko seeni borom léegi li ci des muy bénéfice bi di cinquante millions nga def ko moyen ak fonds boo xam ne ni fonds de guerre lañ koy def jënde ko ay armes luye ay nit ay ay ay tabaarakallahu ay ay mercenaires fay leen ñu ànd fay fayul ñu boole axaabis yi ku ñuy wax xullay si jiite leen mooy xale yi nga xam ne ay doxandéem lañ nekk ci Makka ak yeneen i xale ñu dajale alal ju bari jënd ay fas jënd ay géléem fa tabarakallahu waajal ne nag dañoo bëgg a bett yonent yàlla Muhammad fayu lii lañu waajal lii mu ngi xew ci janvier l'an six cent vingt cinq waaye jamono yooyu rek dañoo jékki-jékki dégg cri de victoire comme niñ ko weesoo ci gannaaw ñu ne grande puissance mondiale bi nekkoon ci jamono yooyu muy Perse ak euh, byzantin muy Rome actuelle Europe de l'Est dañ doon guerre guerre mondiale année boobu année boobu yàlla dogal Rome comme ni ko alquran prédire woon moo mujj dóoraat gañe euh, perse yi muy iranien yi mu doonaat double victoire ci jullit yi ndax yàlla moo ne wa yawma idin yafraxul muminina bi nasrillahi euh, wa yawma idin yafraxul muminuuna bi nasrillahi yansur man yashaau al azizul hakim loolu wees woon nañ ko ci gannaaw euh, yéefar yi gën a amati choc ndax ñoo doon rey jullit yi démb bi perse gañe di cëppi cëppi ah bi tabaarakallahu ñële di gañe yàlla waxoon leen ne Rome dina gañe effectivement Rome moo mujjee gañewaat te ñoom ñoom lañu bokkal ci parce que ci les trois religions révélées ci la bokk di nga dema nag ana teg bi Abu Bakar tegoon ak Ubay euh, ibnu Xalaf wala Umayyat ibnu Xalaf jotu ko nangu parce que bi ñuy gañe ruum bi muy gañe fekk na paa bi ndax paa bi moom Badar la te victoire boobu après badar la xew kooku kon du joxe gëléem bi waa Màkka dajee waxtaan ñoo effectivement nañ dem dal ci yonent bi léegi force yëpp daje na ñu jub pour dem naka lañ jug pour dem rek Abbas xam ne problème am na Abbas ibnu Abdul Muttalib ñoom ñu néew nag ne que da ngay jug dem parce que xare badar yow yaa demoon jàmbaar nga yow bravoure nga am parce que xale bi sa doom la sax waaye teewul dem nga mu ne nag bërki dem moo njaay laa fa dem ñu jàpp ma gàcce gu rëy dal ma jàpp ma jàpp sama ñaari doomi frère bi ma leen jot dimbaleewu leen ma dërëm te waa ji yërëm ma ma ne dew ma fenn fenn laa demul ñu ne bàyyi leen ko bàyyi leen ko wax na dëgg wax na dëgg mais boobu ñoom xamuñu ne jullit la da ko nëbb xamuñu ne jullit la Abbas moomu nag moo bàyyi ba ñooñu dem mu bind lettre xam ne bu ko joxee kenn ci Makka gën a feeñ mu oolu kenn ci bani xifaar bani xifaar nag bul fàtte nee naa la ay bànne lañ ñoom loo bëgg rek fay leen rek xam nga dam-dam ibnu amr al xifaar yi bi doon bi abu sufyaan fayoon euh, ishirina misqaal yi moo ñëwoon xotti yaram bi naan al xaws al xaws hmm? nekk fa def ay cinémaam ba tiital yéefar yi bañ dem kon famille boobu xam nga Abu Zarrin ci la bokkoon te agresseur la woon ci ñoom nag la jël fay leen xaalis ne nekk ko nekk moins de trois jours na yonent bi jot ci lettre bi bëgguma ñii bett ko ndax xam naa ne jàpp waaj nañu am nañu force matériellement am nañu force financièrement te am nañ détermination bu ñu dalee nii ci kawam parce que nag vengeance ki kay def mooy ëpp détermination fa mu jëm te loolu feeñ na ah kay kon nag na ko jox dans trois jours kooku nag moo daw guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg rifaar yi boobu ba àgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko jàbbaleete yonent bi ubbi ko mënu ko jàng secret d'état la téere yi nee nañ bu yonent bi mënoon a jàng di ko nëbb keroog lay feeñ secret d'état bu toll noonu guerre bu ñuy waajal pour dal sa kaw benn waay di rek mu oo ko eh eh eh mën nga liir mu a mën a ko xoolal mu xool ne ah kii kat sa bàyyi bu ñuy wax Abbas moo la ko bind nee na urgence loo gën a mën a waajal nga waaj waa Quraysh dajale nañ seen alal ji ñu am yëpp ak seen mer pour bëgg la ko sotti si dañuy fayu si yonent bi ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un musiba am na waajuñu xare nag waajuñu xare ñu toog ci xaal boobu waa Màkka dañu mer ndax nee naa la bindu bin hindu bintu utubata mi ñu rey baayam mag ki topp na jigéeni Màkka yëpp ne leen non seulement dañuy fayu ji mais yéen da ngeen di dem parce que góor ñi bu ñu leen bàyyee mën nañu dem ba génn ci montagne yi tiit dellu sewaat te duma ko nangu dañuy dem hind moomu ñàkk lu muy def mu oolu ki ñu wax wax si benn jaam la boo xam ne nii dafa njool ca kaw ñuul ku jàmbaar nag mu ne ko mu di ko ndax nekk bëgg nga gore mu ne ko waaw mu ne ko sa diggante gore lu tuutee fa dox mu ne ko lan la mu ne ko rayal ma benn waay bu ñëw Hamzatu ibnu Abdul Muttalib boo ko rayee rek gore nga mu ne ko loolu rek naa mu ne ko sama fitt bi musuma koo sànni nit mu moy ko mu ne ko bés boo ko bés boo ko fettee ba mu wóor ma ne ma dee na gore nga am beneen version bu ñu ne non hind moomu ko ba koy goreel abdullah ibnu mutim ibnu adi moo ko moom mais rakki baayam bu ñuy wax tuaymatu ibnu adi min bani nawfal moom moo dee mu bëggoon ku ko fayul fayul mu oolu xale bi ne ko boo rayee Hamza ci sama rakki baay jooju euh, muy tuaymatu ibnu adi danaa la goreel bu mu ci man a doon xale bi loolu lañ ko dig xale bi jël xarbatoom benn épée bu mu amee di ko daas di ko daas tooke ko kaar ba mu baax denc ko nag Abu Sufyaan da euh, jaam yi nekk ci dëkk bi kenn ku ne digg na la loo xam ne nii ñii gore lañ leen dig ñii alal ju bari ñii xale bu jigéen bu ñu bëggoon te mënuñ cee jot ñu ne boo demee ci xare ba di nga ci jot ba xabtal ñëpp daal dëkk bi yëpp buubu buuboondoo bi ñuy génn téere yi nee nañ ñetti junni lañ bale junniy nit lañ woon bii nag trois mille personnes lañu gëléem yi gën naa bari euh, armement bi gën naa bari gilet anti-fer yi gën naa bari gilet yi nga xam ne nii boo ko solee buñ la jamee dafay bonde rek dellu loolu mooy dira ak casque en yi muy casque yi nga xam ne dañ koy def seen bopp ba kenn du la mën a jaare gannaaw wala dóor la ci bopp ba mu dal yii daal la bari lool ba muy ñetti junneeg dara ci ay nit ak ay matériaux ñu àndandoon ak génn dëkk bi war a daje jeeg euh, euh, alfasiq amir euh, amir abu amir alfasiq nga xam ne mu ngi leen di xaar madinatu a ndax dig nañ ko ne buñ gañee xare bi dinañ la def buur foofu kooku nag moo ñàkk lu muy def dem ca champ bataay ba gas fa ay pax moo gaa mu àndal ay pax yoo xam ne ay fossé la gas kaw pare def ci lu mel ni euh, ay ñax bàyyi ko fa pour jullit yi buñ ci jaaree rek pëtëx foofu ñu jekkale leen mu gas ci yu xaw a bari lu mat fukk ak yu mel noonu ak coono ba mu ko teg toog nag di xaar abu jahli nga euh, abu sufyaan afwan yonent bi mu jotee ci loolu fanaan guddi loolu guddi alxames Euh, maanaam kori gi dugg na biñ julee ji kori kori maanaam julli korite cinq jours avant après la waa makkatal mukarrama quitté di dox nag di ñëw di dox di ñëw lettre bi yonent bi mu ngi ci jot ci fan yooyu benn guddi mu tëdd yàlla wan ko gént gént gi ñeenti mbir la moom nag du gént ndax yonent la day gis dafa génn génte benn benn nag wu mag woo xam ne dañ ko tër biir këram di ko ren mu mu ne gees xool benn jaaseem jaasi ji ni mu ko tàllalee nii mu gis cat bi damm def pax mu rëy mu gestu tuuti gis benn euh, maanaam xaru xaru laadum bu doon tey xaru laadum bu yax tal ñu rëgat ko nag di ko dóor rek bi mu yeewoo ne subhanallah lii lu mu doon ñu ne ko wax ko jullit yi wax ko jullit yi ci àjjuma ci suba gi dama gént gis benn nag wu ñuy rey nag wi ñuy rey nag du dara lu dul jullit yi ndax nag dafa barkeel dafa barkeel kon tër gi ñu leen rey mooy jullit yi dinañ leen rey neexul gis naa sama jaas yi am benn bën bën bu rëy bi ci am manam dafa damm ci kaw loolu dama ko firee ne kenn ci sama famille dinaa ko ñàkk gis naa itam fa adxaltu yadi fii dirin xasin gis naa ma dugal sama loxo ci benn gilet boo xam ne en fer la ba kenn mënul agsi ci man ñu ne ko loo ko firee mu ne dama ragal ne mooy madinatu munawwara madina yàlla encercler na ko sécuriser ko ba fekk maa ngi fii ne dinaa mucc ñeenteel bi mooy gis naa xar mu ñuy rëgët di ko dóor ma gis ne moom mooy yéefar yi ñëw di xeex seeg man kii yore seen drapeau jiite yoon wa danañ danañ ko rey bul fàtte nag lii mu wax yëpp nii la demee gaa yi nag ci àjjuma ci suba gi léegi loo bëgg mu ne gaa yaa ngi ñëw dama bëggoon ñu des ci dëkk bi toog fi muy dir boobu ñu ma wan mooy gilet boobu ma toog ci biir dëkk bi bu ñu ñëwee fekkañ ci biir dëkk bi ñu duma leen fi duñu perte benn yoon ndax ñu ngi suñu biir dëkk ñun génnuñu te ñoom dox nañu lu bari kon ñàkk nañu force bu ko defee bu ñëwee fii dañ leen di jekkale rek mu jeex jël seen alal Abdullahi ibnu Ubay ibnu salul naa feq la waaye jug taxaw ne ne ne ne mbooloo mi li yonent ci bi wax dëgg la dëkk bi mosuñu fee toog noon fekk ñu fi te dumawuñu ko ndax nee naa dëkk bi configuration bi ni mu demee neexula dugg nee naa est bi yëpp mënoo fa dugg ay montagne yu wër la sud bi yëpp mënoo fa dugg ndax ay montagne la léegi kon nord ak sud rek moo fi des afwan est bi dañ dañ dañ koo tëj ouest bi dañ koo tëj ndax ay montagne noor ak sud moo fi des nee la sud bi banu Qurayza fa lañ dëkk quartier la pour nga dugg dëkk bi ñoom ngay romb ay juif lañ dañoo xaw a dànd tuuti dëkk bi kon ñooñu ku ñu mayul nga jàll doo dugg nord bi moo fa des di benn portion boo xamee ku jógee Sham wala feneen foofu nga mën a jaare te foofu pour nga dugg fa benn montagne bu rëy bu ñuy wax Uhud moo ne ca kanam trois kilomètres avant dëkk bi neexul a dugg kon ku ku ku ku repp ba dugg fa mën ngaa bañ a génn euh, loolu la leen yonent bi wax Hamzatu ibnu Abdul Muttalib tëpp ne nag damay bañ yabeel jib ci ndax Qurayshin liñ leen def bërki démb bu ñu nëbbatoowaat ci dëkk bi dañuy ree ne ah ñii kat dañoo tiit dañoo ragal euh, magi saxaaba yi tëb kenn ko ne nañ génnee nañ génne mais problème nekkul foofu problème bi fi mu nekk mooy Badar xam nga ñu dem bariwul jullit yi jullit yi trois cent et quelque rek la ñu woon te demuñu woon pour xeex bi ñu ñibbisee nag waxe victoire bi ak ni leen malaaka yi dimbalee ñi demul woon te ëpp ñi dem seen bopp da doon metti ñoom nag boobu ba tey ñu ngi toog rek di ñaan yàlla naan yàlla ay waay may ñu beneen attaquement bu mel ni Badar ndax ñu dem wane fa suñu njàmbaar boob ba tey nag ñu ngi koy waay boobu ba tey yonent defaatu fi benn attaquement ñu toog di ko ñaan moom la leen yàlla waxoon wala qad kuntum tamannawna al mawta min qabli min qablu an raaytumu yéen yéen a doon ñaan yàlla naan yàlla yàlla yàlla may ñu benn kombaa bu ñu xeex wane suñu pas-pas ci diine am itam ñu dégg ci xare badar ne yonent bi wax na ne képp ku dee ci xare bi àjjana directement nga jëm ñooñu doon ñaan yàlla yàlla ñu am xeex bu ñu deewee ñoom xanaa ay ñaan la woon ñooñu nag mënuñoo dégg yonent bi toog ci dëkk bi te du génn ñoom ñoo ko yuuxoo yuuxoondoo nekk yaa rasulallah bu dul ndigal lu la yàlla jox jox ñu ndigal ñu génne xeex ak ñoom duma leen mu ne ah, man de gént gi ma gis rek a ma jaaxal te ñoo toog ci dëkk bi waaye nag waxew ko ci cadre joxe ndigal déedéet bu doon joxe ndigal kenn du teg bañ mais mu saawara la doon def yàlla moo ne ko wa shaawiruhum fil amri ndax xubaab ibnu munzir waxoon na ko rek fële ca xaswatu badri ba mu dalee fa mu warul euh, fa fa ci ci ci fu suufe fa mu nekk ko ndax lii yàllaa la ko sant wala stratégie de guerre la mu ne ko stratégie de guerre la mu nekk ko fii haza laysa bi maqaami loolu nag lañ ci jël ba bu xare amee dañuy joxe seen idée ñëpp joxe seen idée téere yi nee nañu xale yi ñoo gën a acharné jeunes yi pour génne xam nga xale yaramam day tànk ak ñi demul woon badar ñooñu ñoo ci gën a acharné mais ñi demoon badar gis niñ def seen mag ñële xam nañ ne ñëlee di ñëw dañoo mer kon nañ leen bàyyi bañ agsi ci dëkk bi ñu songandoo leen éliminer leen coow li bari coow li bari ba yàgg ñu ne jumaa jot na ci ajuma bi jumaa jot na ñu nodd yonent bi ba julli bi mu jullee ba àggal nag ne roof dugg néegam sangu ba set julli ñaari rakk sol ay yéreem jël benn gilet euh, euh, euh, en fer sol ko sol ko nag bi mu ko solo ñu dégg naan kak kak kak takk ko sol tubay ji en ñu dégg mu naan kak kak mu takk ko ñu foog na ci lay yem mu jëlaat beneen gilet en fer tegaat ci kaw bii takkaat ko bu to nekk ñu naan mu dégg ñu naan kak kak ñu ne ah mag koo xam ne yonent la daawul dem sa xare bay sol euh, naan euh, gilet tey nag sol na ko non seulement sol na ko mais zahara bi dirayni mu sol ñaari gilet en fer yu gudd ba pare jël xuusa teg ci bopp bi muy casque en fer wàcc ko takk ko ba yow bët yi rek ngay gis muy weex doo gisati sax kanam lépp nekk en fer gannaaw bi mu kaala woo kaala gu ndaw ci biir teg ci casque boobu en fer takk ko ci put gi takk ko ci put gi euh, jël jaaseem jaaseem bu ñuy wax awnu téeku euh, gàddu benn fittam gàlloo génn ci jàkk ji taxaw mais bi muy dugg ñu gis bi mu jullee jumaa ba pare xam nga ilimaanu ratib la woon léegi nag un commandant wala chef d'état-major de guerre moo génn bi mu duggee di soloo noonu euh, Saad ibn Muaz nga xam ne moo doon kilifa ak lamsaar ni Aboubacar Siddiq nekkee kilifa ak muhajir yu nay Saad ibn Muaz noonu la nekkee kilifa ak lamsaar moo nuyanteeg mbooloo mi ne leen def ngeen musiba kilifa gu toll ni yonte yàlla Muhammad ne nañ toog ci dëkk bi ngeen amee ko surtout yéen xale yi di tëb di dal naan dañuy génn dañuy génn rafetul def ngeen musiba ñu ne ah papa ñun xamuñ ci woon dara dañ bëggoon rek génn mu ne mais loolu waru leen ko woon def ñu nekk foofu werante werante juste yonent bi ñëw li mu génnee nag ak melokaan bi armé wu jusqu'aux dents Saad ibn Muaz daw songo ko nuyu ko ne ko al amaana al amaana yaa rasulullah dañ la doon jéggalu si wax dëgg yàlla xale yi dama leen doon yedd sax wax naag ñoom ba dal seen kaw ne waru woon waroo woon a wax ñu ci teg baat te fii nga bëgg a toog ñu lay xamal ne nag jël nañ décision pour nga def li nga bëgg a def toogal boo bëggee toog mu wax nag waxam ju siiw jooju ne maa kaana li nabiyin an yalbasa lëmatahu euh, euh, summa yahudu xatta yaqdiya allahu baynahu na bayna aduwi mënatuma dellu mënatuma dellu yàlla araamal na ci yonant mu armé wu jusqu'aux dents bëgg a génne pour dajeeg ay noonam araamal na ci moom muy delluwaat këram ba ba bete muy pare ci loolu ndax bu delloo ci këram défiance lay tudd solu na pare dellu ab yonant jamono époque kan moo ko mën a ëpp doole kenn ëpp ko doole ndax moom la yàllay wax kon mu ëpp ñëpp force kooku bu solee nag lëmatoom muy armé wu ba pare génne ñu naan kan diw nee na ba tax muy dellu loolu mënta ne am na mag ñu bari ci lañu jële ku ci war euh, euh, waaj ba jëm ci aw yoon ne da ngay dem ñu oola ne la fomm nañ ko tax ñu bàyyi loolu baaxul loolu kenn du ko def koo xam ne foo takkoo jëm fenn ñu ne la nga toogaat yow fan nga jëm doo yegg a fenn euh, yonent bi génne mag ñi ne wax na dëgg ñëpp daw solu ji ñi amee seeni fas ñu daw topp ko nag mu génne bi muy génn fekk na waa Madina waa Makkatal Mukarrama ñu ngi agsi Madinatu Munawwara mu ne nañu gaaw jëkkanteeg ñoom buntu dëkk ba bala ñoo dugg ngoonu ajjuma googu nga xam ne yaa ngi toog di naan sa ataaya def yooyu ci weeru korite ci la yonent bi génn dëkk bi mu gis ne bu wëri jee mën naa tardé ba yéefar yi jëkk koo dugg ci dëkk bi te day bañ ñu dugg ci bi yàq fi lu bari mu ne fa dullu nii ala aqsari tariqin tegtal leen ma yoon wu gën a gaaw bu gën a gàtt ñu ne ko toolu bàyyi diw de boo fa jàddoon boo fa jàddoon di nga am yoon wu gàtt woo rejoindre Uhud te du jël taw mu ne nañ fa jaar ndekete bàyyi diw boobu ñuy wax nee na jullit la de ndekete nafiq international la mbooloo bu sóoboo yeneen bi bi muy jub juróom ñett téeméeri jullit ñoo ko topp sept cent personnes ak yeneen trois cent yu ci bokkul waaye ñu ngi ci mbooloo bi ñooñu nag ñoo traversé toolu kooku waa ñu nekkete silmaxa la ci ay bët mu jékki-jékki dégg riir ci xam nga armée lëmm bu jaaree ci tool du ñàkkalum fa yàq hmm. wala ndax dinañ joggi ci ay gàncax yoo xam ne yaakaaroon nañ ci ñoom ak ñor euh, sin ma xam jékki-jékki dégg coow li munaan naan la loola la ñu naan kan muhammadan wa jayshahu mu naan kan xam nga moom nee na jullit la ñu ne ko yonent bi mooy romb ak armeem mu ne bu leen jaar sama tool laa wax yéen doo leen dara adduna rek ngeen di wut nga naan yonent du yonent dara xam nga gumba du am kersa loo xalaat ci lu ñaaw téere yi nee nañ wax na ko bàyyi ba yonent bi tollook moom xeetu saaga bu ne saaga na ka saa dum nu wax euh, abi waqas tëb ne yonent bi bàyyi ma jekkali kii du dara kii du jullit yonent bi ne ka daahu fa innahu amal qalbi wal bàyyi ki kii nattu bi ka dara rek doy na sët yàlla daf ko yóbbul bët yi yóbbul ko xol bi te ñaari bët am bëtu xol ak bëtu ay e, bëtu yaram mu nekk kii nag ñaari mu ñàkk rek doy na booy bu ko tegal leneen waa ji di saaga moo tax nit ku baax yàgg naa dégg wax ju bon di saaga di ko dégtal yonent bi nag naan ab yonent la waaye kii dul dara di wax lu wax ju bon jullit yi di gañña ba romba toolam bi da lañ génne toolam rek ak si Uhud bi ñu agsee Uhud yonent bi sant yàlla mel ni nag ku jëm ci noor bi ba xaw a mel ni ku romba Uhud ne waaw kay dama bëgg Uhud féete ñu gannaaw bu nga xam ne daf ñuy défendre moom Uhud yonent bi daan na wax ne jabalu Uhud Uhudun jabalun yuhibbuna la boo xam ne dama ko bëgg mu bëgg nga ne ko du ko toroxal mu devancé tuuti Uhud nee leen fii ajjuma ci ngoon gaa yi campé ca samedi ga di la quinze shawal euh, fekk na léegi moom bi mu campé Abu Sufyaan dafay ñëw ak waa Makka doon trois mille personnes bari lool bari alal loolu bi ñu ñëwee di dugg ci dëkk bi xamatuñ fu ñuy jaar ndax kii jiitu na leen fii ba campé fi te lii la yonent bi bëggoon ñu ñàkk pexe à peine à cinq cent mètres ñoom it ñu campé janoog jullit au noonu ñu campé di séenante nag yonent bi profité boo rombee Uhud dafa am benn jànja bu ndaw benn montagne bu ndaw boo xam ne moo ne ci seen kanam kon yonent bi dafa mel ni diggante ñaari montagne la campé wu bu ndaw bi ak bu mag a mag bi di Uhud mu campé fa euh, toog fa ñu noppalu guddi gi yëpp téere yi nee nañu jigéen ñi di sept jigéen ci Quraysh quitté nañu ngir bañ seen càmmeñ yi daw bi ko waa Lansaar déggee muy Madinatu Munawwara <clears throat> ñoom Fatima Zahra ak njaboot gi ñenn ñi itam quitté pour ñëw am na ñu ne lan demee xeex bi la <clears throat> ala kulli ñu nekk fa ba ca suba ga noppalu ba ca suba nga ñu xëy yeneen ci woolu abdullahi ibnu jubayr abdullahi ibnu jubayr ansaari la tànn juróom fukki nit cinquante personnes yoo xam ne daf leen booleeg ñoom ne leen yéen dem leen ngeen yéeg ci montagne bu ndaw bële bu ko defee di tiim champ de bataille bi tudd rumaat yi mooy ñii euh, ñii sànni ay fet comme niñ ko waxee woon ci xaswatu badr na ngeen fa toog nag sëppu champ de bataille bi fu ñu leen joxee ndigal rek ngeen sànni xam nga kii lay sànni ay fett te tiim la neexul a fett boo leen tolloo woon sax nga mën a xam nga badar daleen sukkaloo fii nag da leen loo ci kaw montagne bi cinquante personnes ne leen nag fala tazaalu fi in kaana al xarbu alay in kaanat al xarbu alay lana aw alayna surtout surtout bu leen déplacé wu fa ngeen toog moo xam ñu gañe moo xam ñu gañe ñu ba ba ma leen di jox ndigal pour ngeen wàcc ñu bëgg a dem mu owaat leen ne leen dégg ngeen li ma wax ñu bëgg a demaat mu owaat leen dégg ngeen li ma wax surtout bu leen jógee seen place ndeke boobu yàlla xamal na ko ne defet bi ñu war a am yëpp ci ñi lay jóge sallallahu alayhi wa ñàkk dégg ndigalu ñii defet bi dara xew moo ko war na ndara jib ñooñu dem yéeg ci kaw montagne bi escalader ko taxaw ca kaw tiim ñëpp nag tiim nañ jullit yi tiim yéefar yi xam nga ñooñu euh, lépp loo xam ne entrave la ak yàqu-yàqu bu nara am ñoo koy njëkk a gis wax ko jullit yi te jullit yi lañ gën a jege montagne boobu diggante ñaari campement wu jullit yi ak yéefar yi fa ne waaye jullit yi la gën a jege Abdullah ibnu Jubayr yi yëg ak ñi mu àndal yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oolu baayam Hamza ne ko defaral sàppe yi oolu Ali ne ko eh, waa muhaajiruuna kan lañu jox seen daraapo ñu ne ko daar Abduddaar daar wees woon nañ ko seen doomu baay la ca gannaaw ñoom lañ jox seen kii mu ne kon ñu nit ñoo gën a yey ci loolu ana Mus'ab ibnu Umayr mu ne maa ngi nii ñu nekk ko itam ci banu Abduddaar nga bokk kon jël suñu drapeau ngir feddali kóllëre moom la ko joxoon ci Badar moom la ko joxaat fii itam Musab ibnu Umayr fàtte woo ko moo njëkk ñëw mu Munawwara jàngale fa lislaam tuubloo ak Saad ibnu Zuraara euh, ak Saad afwan tuubloo Saad ibnu Muaz ak Usayd ibnu Xudayr gannaaw ba mu àndeek Asad ibnu Zuraara Abu Umaama xale boobu lu ne def na ko foofu dafa rafetoon ba ñu koy niraleeg yonent Yàlla Muhammad ci rafetaay ak taar tabarakallah ñu jox ko drapeau bi drapeau nag yow mi xamul euh, guerre jamono yooyu nam demee bul foog ne nii guerre mel tey ci ay bombardement noonu la meloon jamono te tey am na lu ñuy tuddee komba komba bëri xam nga bëri léegi combat lañ ko euh, xam nga am na lu ñuy tuddee jël jël dañ koy définir ñu ne boo amee quatre appui daan nga wala nga ne trois appui dàng am bu mu ci mën a doon jamono yooyu nag loolu la fa tuddoon defet mooy lan mbooloo lu ñu bari bari bari géeg néew gi du problème xam nga fo lu fan la defet nekk drapeau bi bu daanoo rek ñoom seen guerre ku sa drapeau daanu yow eh, am nga defet loolu mooy seen quatre appui ñoom kon nga gis ne kon ki gàddu drapeau bi mu ngi ci risque ndax moom mooy cible premier bi ndax moom bu daanoo bu daanoo drapeau bi daanu après xeex ba jeex appui bi foofu lay nekk ndax loolu mooy jur badar gis nga niñ bare te ñoo mujj am defet ñu oolu Mus'ab ibnu Umayr jox ko ko ñële jël talxatu ibnu abi talxa al abdari jox ko ko muy abdu dar la bokk di doomu bàyyi ci ki yor drapeau jurit ki ngay xam ne ku foog ne mbokk bokk ak nit nday ak baay bokk ak nit nday ak baay dana jariñ dara yawmal qiyaamati da ngay nax sa bopp sama baay jur la ku foog ne sama baay mooy diw ku foog ne dina la jariñ dara danga ngaa demul ba yawmal qiyaamati gis yéefar bi tabaarakallah ak jullit bi ñaar ñi yor drapeau yi ñoo bokki baay kii yoral ko yonent bi kële yoral ko Abu Sufyaan rasul kufru bi yonent bi leen sàppe yi jaabal nag ak fasam tey téere yi ne buñ doon wax diw sawarul dara moom yonent bi looloo ko dal sawarul dara booleeg li mu sol ci weñ dafa bari jamono yi fekk na ko mu commencé jël poids ndax âge waaye teewul mu ñëw ba ci jullit yi rangale leen waar leen yedda leen ne leen góorgóorlu leen yàlla nee na boo leen muñee dana leen yabalal ay malaaka mais malaaka yi bala ñoo ñëw da ngeen di muñ góorgóorlu leen bu leen mooy seen sama ndigal góorgóorlu leen lu leen nara dal na ngeen xam na ngeen muñ mais gannaaw yii nii yow jullit bi na nga xam ne dafa am ay ñaan yu jiboon ay ñaan yu bari nag badar bi mu paase dafa am ci biir julli yi ñu doon ñaan yàlla na yàlla ak a neexoon nga may ñu rek beneen combat boo xam ne ni dinaa ci xeex ba dee ba dee ci dem àjjana ñaan yooyu nangu na nag ñu ngi ci biir mbooloo mi am ñu doon wax yàlla ay waay may ñu rek benn daje ñu dóor yéefar yi ba kontaan ci suñu bopp ñaan yooyu nangu na Abdullah ibnu euh, Jahshin Abdullah nu Jahshin mooy jàmbaar ji nga xam ne moom la yonent bi yabaloon ci njëggabale te mu rey fa amrun al hadrami bi jur badar kooku dafa taxaw ak abdullah ibnu rawaha ñu toog di ñaan kenn ku ne nanga na nga ñaan abdullah ibnu rawaha ne yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma kartan may may dóor yéefar yi di di leen lor ba kontaan ci sama bopp abdullah ibnu jahsh bàyyi ko ñaan ba pare mu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma benn fett dugg fii ci sama boli gi génne fi ci des nga yóbbu ma ajal ah kooku ne tekk nee na wallahi abdullahi nee na eh, abdullahi ibnu rawaxa nee na noonu laa gise ñaanam nangoo noonu yonent bi waxtaan ak ñoom dalal leen jékki-jékki eh, abu sufyaan ci wàllam moom it di defar ay sàppem bi muy defar ay sàppem ci stratégie ndax moom amul fi torop ci stratégie mu dem ba ci banu abdul daar ne leen daal dama bëggoon ñu waxtaan waa kër Ousmane ibnu abi talha ñu ne ko waaw mu ne dañ bëggoon daal drapeau bi boo ñu ko mënoon jox rek te yàlla tax ñu ut daal ku jàmbaar ci mbooloo mi jox ko ñooñu ne ko yow da nga ñu yëpp yow xam nga ci Quraysh ku ñu gën a jàmbaar ñu ñuy yor drapeau bi mu ne déedéet laqad utiinaa fi badrin min qibalikum dafa fekk liñ dal ci badar yëpp yéen yéen a ñu ko tegoon yéen a ñu ko tegoon ñuy bañ nag ñu ñu jaare ñu ci yéen deuxième fois ndax yéen yéen a dawoon mbooloo mi toppale te moom fekkewul badar ñu bëggoon daal ngeen jox ñu rek drapeau bi booy xamee ne dangeen ngeen a daw ngeen jox ñu drapeau bi ñooñu tëb nag waa banu abdu daar yëpp seen neer yi jug nga koy abu sufyaan yëpp nga ñëwaa yëpp nga yow kilifa yu toll ni ñun ngay wax lii wax a wax ne bu ñu naree daw euh, ñoo ñoo gën a ñàkk fayda ci euh, arab yi ndeke abu sufyaan loolu la ci bëggoon dafa bëggoon tendre seeni neer ah loolu rek laa bëggoon comme noonu la kay ah ñu seetaan leen ba xam effectivement ñooñoo geer geer bi amul Sufyaan dellu Hind soxnaam jug li muy doon doon jigéen di wër jigéen ñi ak a wër góor ñi naan yéen la ñuy waxal wayhan xumaatul adbaar wayhan yéen laay waxal xumaatul adbaar yéen ñi nga xam ne yéen a ñu war a sàmm yéen ñu yor drapo bi darban bil anaaq na dóor ci loos yi in tuqbilu boo leen boo leen avancé ci jullit yi écrasé leen euh, in euh, in tudbiru nu faarib boo leen dawee ñu bàyyi leen ba faw euh, wa in tuqbilu nu aanit boo leen avancé ñu akolaat leen ñun jigéen ñi bëgg leen loolu di leen bégal ci lal yi wa in tudbiru nu faarib firaaq xayru amit boo leen dawee tey nag comme ni ngeen dawee badar boo ñu tuddatee musiba am duñ leen xamati doo leen ñu xamati noonu lañ doon def di wër di wax loolu di tendre neer yi yonente bi ci bisu samedi bi préparé nag ñëpp di bëccëg gi ñu ne hëpp commencé leen yonente bi ne bismillah urzu ala ismillah xeex leen ci turu yàlla yëf ya tàkk hamzatu ibnu abdul muttalib nag mooy gaynde gi hamzatu ak ali ibnu abi talib ñoo diriger guerre bi ak ku ñuy wax Asim ibnu Thabit ibnu Aflah al ansari ak Abu Talha ñii ñooy jàmbaaru xare bi naka la loolu yonent bi def loolu jullit yi nag sàkku ci moom mu retiré wu delluwaat ci xayma bañ ko defaloon yonent bi dellu fa avec tabaarakallahu désespoir ci waxin di ñaan boroomam di ñaan boromam Hamzatu ibnu Abdul Muttalib comme la xew Badar yëpp moo ko liggéey Hamza boobu rek moo tëb daw dem ci banu Abdou Dar ñi nga xam ne ñoo yore drapeau bi xam nga ñooñu monté nañ leen ba ñu monté nii mu ma leen moom Hamza fekk Talhatu ibnu Abi euh, Talha gàddu drapeau bi naan ulu hubal ulu hubal moom Hamza mu fexe ba perse nit ñi fees ñëw ba ci waaj ji dóor bopp bi bopp xar waa ji daanu naka la waa daanu drapeau bi daanu ndax doole ji doomu bàyyi yuuxoondoo ne bu drapeau bi daanu bu drapeau bi daanu ku ñuy wax Ousmane daw jël ko ibnu talxata bi mu ko jëlee gàddu ko téye fekk Hamza mu ngi doon gestu gisaat drapeau bi jëm kaw mu gestu dóoraat ko ci mbagg mi xar ko ñaari yoon ndax doole ju bari moom Hamza mbo ay frère am yuuxoondoo benn rakkam dawati euh, benn rakka yi def ñaari parti ñaari parti ñii song Hamza repoussé ko ba ca kanam keneen ki ci des beneen frère am ko benn baay Talha abi Talha moo ko jur mu dawaat jël drapeau bi noonu ñuy repousser Hamza ndekete Ali ibnu Abi Talib jaar na ci mbooy gi dóoraat waa ji ci gannaawam euh, bopp bi bopp bi jaar fële drapeau bi daan Ali ibnu Abi Talib di rakk Hamza ñu naan daanu na daanu na fi ñuy reposer Hamza di gestu beneen frère am dawaat jël euh, liwaa bi muy drapeau bi téeku Ali ibnu Abi Talib gestuwaat ka def ne Hamza def dóor ko ci digg ginnaaw gi ndiggali damm góor gi daanu tertali ñe leen ci fële ci Hamza di repousser Ali ibnu Abi Talib beneen seen cinquième frère jël drapeau bi ñoo bokki bàyyi nag dañoo bari ñoom Abi Talha moo leen jur euh, ku ñoo Ousmane jël ko ibnu Abi gannaaw bi Ousmane euh, ibnu Talha faatoo dafa am ku ñoo Ousmane ibnu Abi Talha ak Ousmane ibnu benn Ousmane bi ñu ngi ko tuddee Ousmane bële ak ku ñoo Aas ibnu Talha ak ku ñuy wax Musaafi ibnu Talha ñooñu noonu ñëpp abi tal moo leen jur Talha ñoo euh, moo leen jur Talhaay taawam al Abdari ñoo bokk nag benn baay benn baay bokk benn famille bi cinquième bi daanoo seen doomu baay rëppeelu jël drapeau bi ñeneen ñi ci des daw song ji Ali ibnu Abi Talib pour repousser ko yow mi ciy dégg loo ciy dégg guerre bi kon pëcc xoole leen benn côté rek la ñuy xeex mooy li jullit yi bari bari li yéefar yi bari bari Hamza dafa ne na def stratégie guerre bu gaaw te gaaw a jeex mooy drapeau bu daanoo rek mu jeex yéefar yi tiit ndax gis nañ seen drapeau bi surtout ñu sori day daanu rek di daanu rek te drapeau jullit yi yëgoogul mu ngi mel ni match bu commencé rek hop arbitre bi sifflé ñu dugal cinq buts dina na xare dina na xare bi jindi moral bi dem noon la noon la yéefar yi mel jullit yi nag kontaan euh, bi ñu repoussé Ali ibn Abi Talib Hamzatu am ko ñëw Asim ibnu Thabit ibnul Aflah moom moo wëri ji dox gannaaw ansaar yi la kooku ku ko gën a jàmbaar yàlla bind ko wëri ji ba wan leen gannaaw fekkaat waajooju di musaafi dóor ko mu dee drapeau bi terteri daanu wat ñu ne daanu na daanu na sixième personne daanu géntu yonent bi la yàllay dëggal mooy xar moomu ñu rëgët noonu rek jiit jiital ko mooy drapeau bi ku ko laal daan bu ñu ne kenn sañatu la laal drapeau laal drapeau bi mooy déegu gaaw gi ñu nekk ci lool di wëndeelu di wëndeelu ba benn waay ci Abdou Dar ne ñaaw na jëm jëlaat ko di frère Moussa Fex bii noonu la def da koo yëkki rek Asim gestuwaat doxe ko gannaaw septième personne dóoraat ko jaasi mu daan léegi ñoom ñu songanoo Asim ñu songanoo Asim ibnu Thabit ibnu Aflah biñ ko songanoo fekk na bàyyi nañ léegi Hamzatu ma leen amaat jot doxe gannaaw ñëwaat fekk huitième personne bi téye drapeau bi mu doxe ko gannaaw rendiwaat ko bi mu ko dóoree kooku daanu ñu yuuxoondoo ne Hamza ñëw na Hamza ñëw na Ali ibnu Abi Talib nawaat posit ñëwaat neuvième personne bi bi muy gàddu drapeau bi Ali doxe ko gannaaw defaat ko ni mu ko def ñu jiitu kooku daanu ñu ne musiba am na guerre bi jeex na neuf personnes yu bokki bàyyi bokk famille musiba am na drapeau bi nag daanu daanu kenn ci seen jaam yi ne lii ñaaw na rus naa lii samay sanga liñ daj dee fii may xoole ñaaw na gàddu drapeau bi nag naka la jullit yi xoolaat drapeau bi jugaat xamsatu booleeg ali euh, fexe traversé waat mbooloo mi fekk jàmm boobu jekkali ko dóor ko dizaine personne dee na am seen ñaari xalif yoo xam ne nee nañ lii duñ ko seetaan ñoom ñëpp ci famille bi lañ bokk mooy xale yooyu nekk ci surga yaag yu mel noonu jug bi ñuy jógee doon jël drapeau bi ali ibnu abi talib ak xamsatu songaat leen dóoraat leen ñoom ñu yegg suuf douze personnes dee nañ ñu jekki-jekki ka ca nag ci banu abdudar jooy ñi ñii fu ñu dee falaay dee ñoom ñaar ña ca des jëlaat ko ñu ñu ñu defaat leen lañ defoon quatorze personnes ci banu daar ak seeni jaam tuuru na daanu na léegi nag drapeau bi kenn laalatu ko waa banu daar ñi nga xam ne ils ont pour téye drapeau bi dee nañ ñoom ñëpp waa Quraysh si kenn sañ ko laal te drapeau bi ku ko laal xam naa ne drapeau bi moom wax dëgg yàlla euh, dafa dafa sikk ndax ku ko laal daanu ñu ne ci boobu xaal nekk ci boobu xaal drapeau bi nag tëdd ñu ne guerre bi jeex na ger bi jeex na ger bi jeex na guerre bi jeex na guerre bi jeex na ba benn jigéen bu ñëw amratu bintul xaaris moom moo ne lii duma ko seetaan daw jëli ji daraapo bi fekk benn jullit mu jox ko ko fekk jullit ji naan guerre bi jeex na guerre bi ñoom jeexal nañ ger bi guerre bi jeexagul lii mooy première mi bi nag première mi bi bi drapeau bi daanoo yëfër yi découragé Hamza nag toppaleen toppaleen rek ku mu ci jot cor nga daanu Hamza toppaleen mel ni gaynde ali ibnu abi taalib fu mu gestu gor leen ginnaaw gi nag lay yéefar yi am xalaat ne ñun ñun ñu topp rek ñuy xeex ci diggante drapeau drapeau drapeau mais yu tax ñoom ñun suñu drapeau di daanu euh, ñuy jël beneen te ñun demuñu ci seen drapeau am ñu am xel nag ñu ngi doog am conscience def benn groupe jaare ca gannaaw dem ci drapeau wu jullit yi Mus'ab ibnu Umayr mu ngi ko téye am ko ñëw abdullah ibnu euh, qamiata allaysi moo ñëw songo musab ibnu umayr fekk ko foofu jaasi ji dal mu wane ko gannaaw jaasi ji xale bi terteri mu yekk ko mu daan waaye musab dafa rafet a rafet ba waa ji dafa foog ne mu sallallahu alayhi moo nekk nii léegi nag ibnu qami'a boobu ak groupe boobu mu àndal moo yuuxu nag ne qutila muhammad qutila muhammadun qutila Muhammad rey naa Muhammad rey naa Muhammad loolu nag bi mu koy wax écho bee ngi dem Muhammad dañ koy dégg waaye euh, moom jàpp na ne Mus'ab ibnu Umayr bii mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te Mus'ab ay dee fële loolu nag bi mu ko waxee xam nga rumeur lay doon xëy na moom jublu ci woon sax rumeur jullit yëpp dégg ko ñu naan léegi xam nga même ku doon xeex sax di nga arrêté ndax cause boo ciy xeex bañ ne la cause ba dee na da ngay taxaw lijjanti ndax dëgg la dëgg ñi doon xeex yëpp bàyyi na déedéet est mu wax dëgg la est-ce mu wax dëgg la ñële ci yéefar yi ñoom dañ doon daw Hamza toppaleen di leen di leen dàq guerre bi amatul organisation pénc xool la mujj doon parce que jullit yëpp topp nañ di daw di leen jàpp di xam nga koy daw da nga koy dogaale ñi nga koy dóor ñi yu mel noonu euh, pëccëxoo boobu laata loolu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi muy commencé guerre bi waar jullit yi ne man yaxudu hadha sayf bi xaq yi génnaale a jaase jaasi jii moom du xeex parce que yàlla euh, daf ko bind ci yërmande kon du dóor nit musul rey nit musul dóor nit waaye sama jaasi jii ku ma ciy xeexal kan moo koy jël ci xàqam Abubakar jóg mu sant ko gërëm ko kooku toog Omar jóg noonu mboolem akaabiru saxaaba yi jug miqdaad ibnu amr nga xam ne gaynde la jug zubayru jug mu ne patt ba yàgg mu ne man yaqudu hada sayfa bi xaqihi daasi kan moo koy jëlal téel ma ko ci dëgg dëgg li mu mérité abu dujaanat al ansaar yi muy sambaak ibnu xarasata moo jug ne yonent bi ma xaquhu lan mooy àqam mu ne ko an tuqaatila bihi fi sabilillahi xatta tanxaniya mooy ngay xeex ak moom ci yoonu yàlla di ci xeex di ci xeex weñ la ba mu ba mu dëngal boppam ba dëng xam nga nag weñ buy dal ci yàpp ba dëng la mu def rëy na abu dujaana nekk ana axuzuhu bi xaqihi ya rasulallah maa koy jële ci xaqam yonent bi nekk xuzha kon nag jël ko fa walak abu dujaana ci jël ko zubayr ibnu awaam nee na ma mer ci saas ndax doomu bàjjanam laa te jàmbaar laa lu tax mu romb ma fi di ko jox kii dinaa xool kii lan la mérité jaasi nee na ma bàyyi li ma doon dof tappa waa ji mel ni rek ku yor mboobam di di gor ku mu romb nga yàqu ma topp ko rek ku mu romb ku mu romb nga yàqu ndax yonent bi daf ko jox jaasi ji mu génn benn brassard rouge takk ka ci ci ci bopp bi mu ngi ko tuddee woon asaabatul mawti mooy brassard de la moor moom loolu la ko tuddee nee na fu mu ko takkee rek yëf yi xonq na ba pare nag di dox gàddu jaasi ji di bonde di bonde di tëb di dal yonent bi xool ka ree ne tilka mishyatun yubghiduhu llahu illa fi sabilillah waa jii de nee muy doxee dox bu yàlla bañ la lu dul ci yoonu yàlla nii mu koy defee nag ci yoonu yàlla neex na yàlla trop yàlla da ciy bég sax ndeke c'est lu boo ko defee ci turu yàlla mën naa dagat ndox boobu nga xam ne dafa xaraam wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tablugha al ardi wa lan tablugha al jibaal kii tabax tur dañ ko tere waaye kooku noonu la doon defee mun a yonent bi ne nii muy doxee neexul yàlla waaye barab bii mu koy defee yàlla ngi ci big bayre abu dujaana nee na zubayru nee na ko topp ku mu romb yàq la ba nag benn yéefar boo xam ne dafa njool deux mètres ci kaw mu dëjëj bi silaa sol ay euh, maanaam armé wu jusqu'aux dents yaramam yëpp weñ la mënoo ko dóor fen kooku daal moo romba mel ni char buy romb ci dëkk ku mu romb dóor la nga daanu te ku ko dóor danaan keng kii wat ndax ndax maanaam gilet bu baax xëy na bi gën a baax la defar yaramam dara feeñu ci te ku mu laal nga yàq kooku nag moo topp jullit yi Zubayru nee na ma koy xool muy rey jullit yi di rey jullit di def lu ka neex ba rey neuf personnes ci jullit Euh, manaan ci yàlla dajeeg Abu Dujaana nee na dama jékki-jékki seen Abu Dujaana ma gis ka mu ñëw ci waa ji waa ji dóor ko dóor bu métti Abu Dujaana fent ko ne xaw na ko laal tuuti Abu Dujaana su nag jëlaat jëlaat doolem bi mu ko dóoree waa ji maanaam jaasem dafa dafa romba weñu waaj ba jekkali ban jooju jaase kenn xamul lu mu doon abu dujaana te continuer kaab ibnu malik nee na maa seen abu dujaana muy dox maanaam dinaa ko topp dinaa ko topp mu gisaat benn waa joo xam ne mu dëjëj bi silaax mu ngi fees dell ak euh, euh, euh, tabaarakallahu gilet fees dell ak arme kenn mënu ko jege muy def jullit yi lu ko neex mais li ci yéeme dafa war fasam ku war fas nag di dóor ñoo xam ne dañuy dox di leen tiim du neex a fayu abu dujaana ma koy maanaam sama xel yàlla nañ daje ba mu dajeeg waa ji ndekete dafa mel ni dafa sentir ne dama koy topp ma topp ko rek mu dem ba dajeek waa ji abu dujaana dafa yuuxu ah ba waa ji tiit mu jël jaasi ji teg ci bopp bi téere yi nee nañu ci xëy na xëy na mu baalaxa la dafa xar waa ji ñaar ba xaraale euh, euh, euh, fas waaj jaar fii waaj jaar fii ba pare abu dujaana nee na kaab nee na abu du gestu ma ne ma hal tara ndax gis nga ni ma ko def ree nga xam ne kii force tranquille la kii yëgul lu xew nee na ma yuuxu ne Zubayr nag nee na ci lay doog a xam ne yonent bi du juum jaaseem bu ko xañee jàmbaar yii yëpp am comme mu ko jox am na lu xew abu dujaana nag moo replié naa yëfar yi jeex nañ replié ne yëfar yi jeex nañu daanu nañ jeex nañ Hamzatu toppaleen Ali ibnu Abi Talib bi ñu reyee nag Mus'ab moo jël drapeau bi téeku mënatu la dem taxaw benn place Hamzatu toppaleen Abu Talha toppaleen al Ansari Abu Dujaana toppaleen yëfër yi di daw daw gu raw nag gu raw gu raw kaar gi ñu dawan Badar daw daw gu raw gi ñu dawan Badar euh, ba romb tabaarakallahu montagne ya fa nekkoon bi lii xewee xam nga nit kuy daw te xamul li muy daw di daw te xamul li muy daw di daw te xamul li muy daw ba yàgg am na benn xale nag Aba Souleymane di Khalid ibnu Walid mooy mu ngi doog a apparaître mu ngi doog a apparaître ci xeex wax nañ ne la dale ci maam Adama ba àdduna tukki xamuñu ko ko gën a jàmbaar Khalid ibn Walid moo toog di observer terrain bi moom xeexul woon nag moom mu ngi taxaw nag ak Ikrimatu ibnu Abi Jahlin ne bu bu xeex bi jeexee nii ñu dawee nii day yomb ñañ taxaw taxaw noonu nag di observer xeex gis ñii jaar fii ñii jaar fii ñii jaar fii euh, yéefar yi ñu bari dem nañ nag yàgg ñu ñu ngay waaja a moom moo toog seen nag jullit yi kenn ku nekk di profitoo pour ut loo am parce que yonent bi dafa wax ne man qatala ahadan falahu salbuhu képp ko rey benn nit euh, li mu amee yépp maanaam li nga fekk ci moom yaa ko moom loolu bi mu leen ko waxee bégloo leen wala képp ku for dara fa huwa ahaqu bihi yaa ci gën a yee jullit yi nag bàyyi xeex bi dem di uti ji lu ñu am di for alal di for ay dira ña daw lañ fa bàyyi comme la xewoon badar ña demul woon badar déggoon nañ ko loolu bëgg dañ am te ñoo ñoo ëpp fii ñu nekk ci loolu di for di for guerre bi jeex na gars yi daw nañ geer bi gaaw na trop gaaw na trop gaa yi daw nañu Xaalid ibnu Walid nag bi mu gisee gaa yi di daw mu xool guerre bi yonent bi kenn nekkatul ci wetam ndax ñëpp dem nañ ñii topp nañ ñi ñii arrêté nañ xeexatuñu ñii ñu ngi toog di noppalu mu ne lii day yomb ñu jekki-jekki ñii nag di rumaat yi rumaat yi nga xam ne ñoo nekkoon ci kaw montagne nga xam ne xeexuñu woon ñoom dañu leen santoon rek ñuy sànni ay fett ñoom ñoo wax seen lieutenant muy Abdullah ibnu Jubayr nekk qad intahatil harbu xeex bi jeex na léegi dañuy wàcc ñun pour dem récupérer ji butin yële ah yan butin mu ne waaw parce que teranga ji jeex na mu ne leen déedéet yonent bi waxul woon loolu dane nañ fi toog ba ba muy joxee ndigal ñu nekk mais dafa ne woon nañ fi toog ba xeex bi jeex mais xeex bi jeex na léegi dañ dañuy dem pour jëli ji teraanga fële parce que buñ toogee ba ñële séddoo ko duñ ci am dara mu ne leen toog leen déglu ma ñu ne ko duñu toog mu ne déglu leen ma ma déglu yonent bi ñu ne ko duñ ko déglu ñoom nag ñoo wàcc ñooñu bi ñuy wàcc nag Xaalid ibnu Walid mu ngi leen di séen de loin ñu wàccee wàcc téere yi nee nañ li fa des matul ñeenti nit mu Abdullah ibn Jubayr boobu ci la bokk ak quelques personnes bi ñu wàccee daw di wuti ji alal di wuti ji alal yëpp alquran jàngale na ko wax si yu moom benn projet la am wax si mooy comme sangam nee na ko boo reyee Hamza boo reyee Hamza di nga gore dama lay laaj ndax en réalité Hamza sonnul sonnul na ndax guerre bi yëpp moo ko def lépp léegi Ali ibn Abi Talib ñu ngi koy immobiliser mu ngi téye fële drapeau dara drapeau yéefar yi daanu na Hamzatu ibnu Abdul Muttalib toppaat na leen noonu mu leen toppee di rey kenn di jekkali ñenn ñi di rey kenn di jekkali ñenn ñi kenn nekkul ci wetam wax si ci leneen lii la yàlla doon xaar xale bi xeexul moom gore rek moo ko fi indi mu jël xarbaam boobu muy fittam boobu nee na di ko wëndeel di ko wëndeel ba mu baax rek nee na mu ngi fekk Hamza mu ngi tiim benn waay doon ko bëgg a jekkali nee na ma bàyyi rek mu dem mais vitesse bi mu am tax na xam Hamza gisu ko fen bi muy rey waajooju bay siggi nee na la fitt bi di ñëw di dal ci naq bi naq bi dugg ci naq bi ak doole bëtt ko dem ba ci suuf ba génn ci diggante ñaari tànk yi nee na bi mu sentiree loolu muy métit ci moom nee na mu gestu nag bi mu gestoo di xool ku ko sànni lii nee na mu séen ma may may wax si tàngaayu yaram bi tax mu doon daw pour song ma nee na fara aytul mawta ma ne dee naa jeex ma kii bu agsee ci man jekkali ko ndax xale bii du xeexkat lancé daal la ko yàlla may nee na bi muy daw pour ñëw ci man pour pour fayu di ñëw ci man pour fayu ba ma naan jeex na jeex na bi mu ma bi mu ma dàndee quinze mètres la daanu ci suuf daanu di yëngu di yëngu ba sedd guy nee na bi ma leeree ne xamsatu sedd na guy kenn kenn daru ko xamsa kenn du ko reye noonu njàmbaaram mayu la loolu mais itam stratégie mayu la loolu mais statut social mooy mooy kilifa gi tey banu Abdul Muttalib yëpp mooy seen kilifa tey waaye boobu fekk na kenn daru ko nee na ma daw bu jekk rocci sama xar ba raxas ko ba mu set génn sama loxo ci xeex bi dem ci Hind wala abdullah ibnu jubayr ibnu mutim ne ko rey naa Hamza mu ne ko waatal mu ne ko rey naa ko xar ba bii gisoo deret bii deretam la Hind yàlla sañul lii kontaan bëgg ne Muhammad xamoon na ne dinaa dinaa rey baayam ngir sama baay lii moo xew xeex bi jeex na xeex bi jeex na léegi ñii daw rey nañu nag ki gën a ci lislaam gannaaw yonent bi Hamza mii maa ngi lay yëgal ne bu fekkee woon yonent bi faatu mooy doon amirul muminin moom mooy njëkk doon xalifaam juddu may na ko ko saabiqatu ci manam ak jiitu ci lislaam may na ko ko te mook yonent bee bokk ndey ba pare muy bàyyi ci moom ñoo nàmpandoo ñoo yaroondoo yonent bi nee na yàgg naa sonn ba Hamza tuubee laa noppal Hamza mooy xaritam mooy wëllëreem ñoo niroo ñoo bokk pas-pas te fu mu taxaw défendre nag tey des na ci guerre guerre bi bi mu daanoo Hamza bi mu daanoo kenn yëgu ko kenn ndax boobu piccaxoo total moo fa am lii mooy wàll gu njëkk gi maa ngi dëggal aaya bi yàlla doon wax wa laqad sadaqa allahu wa'dahu istaxissuunahum bi iznihi yàlla nee na li ma digoon yonent bi ci jox leen victoire yàlla dëggal na ko istaxsuunahum ba ngeen ni ba ngeen ni maanaam bale yéefar yi bi idni ci ndigalam ngeen nekk ci loolu nag xataa iza fashiltum ba ngeen dem ba échec échec bi mooy lan wa raaytum ma tuhibbuuna ngeen gis li ngeen bëgg muy alal tax ngeen daw di wuti ji alal min baadi ma araakum ma tuhibbun fa minkum man yurid dunya minkum man yurid axar am na ñoo xam ne yàlla tax ñu xare am na ñoo xam lu ñu yóbbu seen kër la ñuy wut yàlla ne ma bàyyi leen ak seen bopp bàyyi leen ak seen bopp bi nag moo war a changer victoire bi jullit yi am yépp ci premier temps xam nga match bu tàmbali wax dëgg yàlla nga dugal cinq buts yow équipe bi avant première mi-temps dëgg-dëgg deuxième mi-temps boo góorgóorlu woon téye tuuti war ngaa mën a gañe match boobu waaye nag fa tabarakallah coobare yàlla ak ñaan yi war a nangu xëy na tax na am na leneen lu war a xew hada huwa tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh